léegi mu mel ni Jax mu ngi jëm stade Jom Iba Mar ah. le 3 allah rabbi euh, mbër yi nga xamante ni tey mbër bu ñëw dafay indi licence am ancienne mm. licence bi. Mm. ak visite médicale am ak mille francs ah. pour ñu mun ko renouveler foofu. ñu loolu CNG moo ñu ko may. foofu du renouveler kaayu licence. Mm-hmm. il faut mbër xam loolu. Mm-hmm. nit ku nekk li ngay liggéey da koy respecté. Mm-hmm. bu saison ubbee. demal sa bureau ba fañ ko war a defee nga def la nga war a def dem sa yoon. Mhm. parce que yaa jël ne làmb mooy sama mbër sama sama métier. effectivement mais doo xaar ñu lay neexal naan Iba Iba Mar du renouvellement licence gaal gi du renouvellukaay licence. Mhm. loolu il faut nit ñi xam ko. balaa yëf bi di ñëw nga jël say matuwaay préparer li ngay préparer bu démarrer nga ñëw teg sa xaalis teg li nga war a teg ñu defal la sa nga dem sa yoon entre entraîné ji foo gis compétition dem compétir. Mm-hmm. mais da nga leen di neexal pour ñu compétir ci loo xam ne kaay am xaalis loolu tamit il ñu wax ko. Mm-hmm. voilà nañu respecter métier bi ñuy def respecter métier bi ñuy def mooy nekk en règle d'abord. mun mm-hmm. loo ne mbër nga te amuloo licence munoo ne mbër nga te renouveler sa licence doo bëri loo bëgg bëgg bëri sa licence bu nekkul en règle boo ñëwee ci gala bi kenn du la jël. ñu dem ba combat bi des benn fan wala ñaari fan ngay doog a ñëw di. jaabante di bërëx bërëx di di kii ko. di li ngay def. nit ki day respecté li ñuy def gis nga man saison bu ubbee. Mm-hmm. am mosul saison mosul am ñaari promoteur jiitu ma ci fay licence man. Mm-hmm. kenn du ma fa jiitu. ubbi na tey ñëw naa tey wala ñëw naa ëllëg fay li may fay. Mm-hmm. man noonu lay doxee. même bu ma tëggagul damay ñëw nekk en règle. teg samay yëf toog xaar teg samay programme. man noonu laay doxee. Hmm. léegi nag bi ñu ñëwee Ibamar am nañ quinze jours bi ñu dawalee 15 heureusement mu tombeek heureusement mu tombeek sélection nationale am. Hmm. bureau CNG ak ak ak euh, directeur technique yooyu def seen sélection ñu nekk à l'arène nationale entraîné def seen sélection pour CEDEAO bi heureusement def ci dal. Hmm. léegi bi ñu defee loolu entraîné ba pare ñoom bureau CNG mbër yi ñu convoqué woon 22 mbër yooyu. ñu ne ñoom dañ leen di may licence ren. 22 mbër yooyu 22 mbër yi ñëwoon sélection. Mhm. pour dem bëri CEDEAO. Mhm. ñu ne ñooñu nañ leen may licence. Mhm. pour remercier leen ci sélection bi ñu leen def nii la demee. 22 mbër yooyu ñu renouveler seen licence gratuitement loolu Senghor CNG moo ko def. moo ko def may leen ko. may leen ko. diggante boobu am na ay benn mbër ñaari mbër benn mbër 8 à 10 mbër ba maximum 15 mbër ñoo fi renouveler normalement ci bureau bu 15 mbër. à peu près à peu près laa lay wax. kon tey Jax bu woote woon euh, mbër yi ñëw renouveler seen licence ba pare. Mhm. matuñu 64 litres. foo koy jëlee 22 yële dañ leen may. te 22 yee ñu ngi ci préparation compétition bii xel mun naa am ñu ñëw bii xel mun naa am ñooñu seen compétition pare nañ ko. terew dara terew leen ñëw ku bëgg a ñëw day ñëw compétition préparé nañ ko compétition bi mois prochain la. Mhm. sélection lañ def dinañ tëjuwaat fi mu nekk nag ñibbi na. Mhm. nekkatuñu sélection. kon instant yi ñoo moom seen bopp. ku nekk yaa moom sa bopp ci ñoom ku bëgg ñëw dana ñëw. compétition téew leen <laughs> loolu il faut mu leer ci bopp nit ñi président nekkuñu si euh, re regroupement ba jeex na. kon lay daal amul lool. lay amul ku bëgg a bëre ci ñoom am na licence jox nañ ko licence bu valable. te amatul lay. mbëri de dañuy làq sa du ma ñëw lañ la wax ba jour. mooy yow leen ñu wàcc yaa ma leen gën a xam yaa ngi seen biir. ko wax léegi nag am na 15 yoo xam ne à peu près du 15 sax dama wax noonu rek. Hmm. ñi ñëwoon dem def seen renouvellement direct fay. Hmm. léegi nag bi ñu xoolee situation ba bi may yóbbu mise man barka démb ma ne président ah andi naa mise mais man li ma soxla ci mbër duma ko am. Hmm. ndax yaakaaruma fukki fan ak juróom nga am fi quinze mbër. ñetti fan yi fi des ma bëgg fi am cent et quelques mbër mënta ne. mënu nekk xel mënu ko nangu. Mhm. léegi nag comme noonu la demee mayaat ñu li ñu mayoon daaw daaw daf ñu mayoon bi ñu tolloo nii. Mhm. ñuy wax ma wax ko ne ko may ñu mbëri renouveler fële bien que loolu du dëgg. Mhm. parce que loolu peut-être mën na leen pousser ñu ne ah comme ñëw rek la renouveler bëre dina pousser ñu bari ñu ñëw. parce que boo calculer aussi mbër yu bari dañ dëkk ci àll bi. effectivement te ñu ngi si nawet. ñu mm-hmm. ngi ci màggal Touba. Mm-hmm. nekk ci Covid yëf yi mm-hmm. dafa metti si ñoom surtout à lutte simple amuñu moyen. kenn du leen jox ay avance naan demal bëri ji. ñi ci ëpp. alors si difficulté lañ nekk. imagine léegi nag mbër bu war a jógee Ilier ay Bettenteeg ay feneen ak feneen. wala fu ko gën a sori. war a ñëw ba dakaar pour renouveler licence. imagine li muy paas. ñëw CNG fayaat 3000 am fay léegi renouveler licence am. sallallahu alayhi wa sallam dégg nga wax ji léegi. mbër boobu du am boobu moyen. Mm-hmm. imagine ko war a ñëw fay renouveler ñibbiwaat fay préparer làmbam pour ñëwaat encore ak ñaari accompagnant dafay metti ak jafe-jafe yi. dafay metti man foofu laa teg sama xalaat. Mm-hmm. ma expliqué ko président euh, Bira Sène. Mm-hmm. ne ko yëf dafa metti si booy yi amuñu. léegi nañ ko def benn voyage benn ñëw bu ñuy ñëw pour làmb ji boo communiqué nga ne may nañ leen. kuy ñëw ku mën a ku bëgg a bëre am intention bëre na ñëw ak licence am ak visite technique am kese. Mhm. man Jax malgré difficulté yi am gis naa ko man dinaa leen fayal ku nekk seen 3000. déedéet waay président waaw. 3000 yi mbër yi waroon joxe yow. yaa koy génn maa koy fay 128 mbër ñu ñëw bu soobee yàlla. Ah, la dañ laa a féliciter. ah déedéet. loolu dama lu may na 22 mbërëm. Mhm. lu tax man man war mën a may 128 mbër. wallaay. mbër yi war a compétir lañ amuñu. Mhm. da ngay gis ñu bëgg mais amuñu. dëgg la de. mu metti ci ñoom ñuy wër fu ne. waay war a préparer war a ñëw. man su ma leen mënee dimbali ci loolu. Mhm. sant yàlla ci laa bokk.